mbokku internautes yu l'évidence TV ginnaaw bu ñu leen nuyee di leen santir di leen gërëm comme saa yu nekk nu ñu koy defee suñu sujet d'actualité tey thème bi mooy lan mooy le projet Sénégal 2050 dinañu wàcc sur le terrain pour tallal suñu micro askan bi pour ku nekk mu jooyee si xalaatam sur le projet. xam nga tey bëddu yéen waaye xam na lu bopp attan bëddu yéen waaye xam na lu bopp attan xëy na tey ñoom ñoo ko wax ah nañ ko assumer rek parce que tamit nguur tamit bu waxee kenn mu warul jël dara di ci teg. kenn warul jël dara di teg parce que tamit li taxoon tey ñun ñu fal leen tey daa amoon tey ñun lu ñu séntu woon si ñoom amoon ñun lu ñu séntu woon si ñoom ah amaana tamit nañ toog xaar yàlla rek liggan tamit yàlla na ko def. non Sonko moom amul projet loolu moom je suis contre quoi boo xool projet Sénégal émergent bi fi nekkoon moo fi nekk ba tey certes nag je suis apolitique je suis ni Sonko mais projet boobu mu wax moo fi nekk ba tey. bu ñu dégloo ci seen confrère boobu ñuy wax Cheikh Yérim Seck keroog maa ngi ko dégg muy wax mu naan li fi nekkoon ba tey moom mooy continuer et y a peu de gens yoo xam ne xam nañ loolu je crois que ni Sonko amul projet quoi parce que li fi nekkoon lay jël continuer ko fii ba bon moom moo ko ab ba deux mille cinquante voilà quoi. projet bi de ñun liñ ci gis ak liñ ci dégg dal na suñu xel te gis nañu ne lu war a mën a defar Sénégal la. bàyyi na xel secteur yëpp déglu nañ ko bu baax am nañ am nañ ci yaakaar daal ñun am nañ ci yaakaar en tant que ñun ñu nekk ci secteur informel. dëgg moom mooy njëkk te mooy mujj. waaw ah, parce que tamit askan wi sonn nañ xam nga ñun ñii tamit dañ doon toog suñu papa yi naan ñu carrément dina jeex dina jeex suñu papa yi instant yi nii kenn nekkatul si kër ga. waaw léegi boo dematee léegi si kër gi léegi amatul benn mag. léegi ay góor dong la nga fay fekk te yenn góor ñi ñenn ñi jël nañ si gaal gi ñenn ñi dem nañ xam nga mooy loolu dund bi daal dafa metti trop waaw dund bi moom tar na carrément metti na tey projet bi tamit ah ñu ngi ñaan rek yàlla may leen si jàmm rek doon nañ xaar plus que meilleur parce que dañ fi jëlee un projet émergent ñu war a indi loo xam ne moo gën a meilleur ko loolu mais ñoom li ñuy wane ak presque li nekk si émergent bi set benn la. amul benn changement amul dara bon lenn daal lañ ci xaw a changé luñ seen discours mooy lañ ñaan jub jubal daal voilà te jub jubal bi tamit mi ngi commencé tey ci xelu sénégalais bon ci problème mu problème mu problème mu orange bi mooy Cheikh Dieng bi xel tey na ci quoi boobu ba léegi génn ñu leeral nit ñi waxuñu li xew waxuñu nangam dafa ñu génn sénégalais comme ñoo fi andi léegi jub jubal. kon kay dañ naan avant d' arroser la barbe de ton camarade arrose la tienne d' abord. bien sûr méngoon nañu kay méngoon na priorité sénégalais te loolu boo ko xoolee da ngay gis si ñoom ni ñu commencé doxalee muy di sàmm li nga xamante ni mooy li ñëpp moom ñëpp bokk ko ba pare di déglu sénégalais yi di tamit euh, euh, ci wàllu jub jub jubanti bi ñuy wax. boobu boo xoolee da ngay gis ni ñoom ñu ngi ci donc méngoon na ak li ñu déggoon ba ñoom ñuy egsi ci réew mi ñun noonu la ñu gisee ni ñoom noonu la ñuy doxalee présentement. Sonko tey mënul xëy ñëw toog ne dama am projet ñu ne ko sa projet lal la mu ñëw andi Sénégal émergent mënul ñëw ne sama projet aw ma projet mais plan Séné kii plan Sénégal émergent laay continuer loolu bu ko defee xam nga day daanu mais il faut que moom mu ñëw ne dama am projet projet bi lal la mu ne lii la. te bëri na ci dëkk bi ñoo xam boo leen romontee laaj leen luy projet xamuñu ko la moo ci biir projet bi xamuñu ko xamuñu ko jànguñu ko xamuñu ko am na ñoo xam ne talluñu ko sax bon Sonko am na projet topp nañ ko bëgg nañ ko nangam dem votel ko te xamuñu li tax ñu votel ko mën nañu fol mais mënuñu fal. loolu moom xalaatu ñenn ñi la rek te Sénégal lañ nekk ku nekk am nga sañ-sañu wax li nga xam ne moom nga xalaat ak moom nga gis kenn ku ne am na si droit mais li nga xamante ni moo fi nekkoon boobu ba léegi te ñun gisuñu suñu bopp. te ñu dindi ko fi ute na ak liñ ñu wax ñun démb ci jam ñaajo ñun liñ ñu wax démb ci jam ñaajo loolu ak li fi doon dox c'est diamétralement opposé ci liñ ñu wax jam ñaajo démb ñun ci loolu lañ gën a am yaakaar parce que loolu lañ gis ni mooy liy doxal Sénégal